lii nga def yàlla nay sa njëglaay barkeb sëriñ Touba loo am ren jii yàlla na doon asaka yu déwén ci barkeb Seexuna Ahmadul Xadim Cheikh Mbay jëf Cheikh Mbay jër jëf ñi ni jërëjëf nag mooy say mag ñi ni jëf mooy ajaratu sunu yaay ju baax jii nga xam ne ni kaar gi yàlla ko jàppal ak jàmm ci barke Seexuna Ahmadul Xadim loolu mënu woon a ñàkk ma wax ko nan ko ñaanal sunu borom wéral ko ci barke Sëñ Tuubaa ci réew mi la soxla yow réew bëgg ndaw lu am jom nangoo liggéey téeb tànkam cay dimbalee yàlla soxlawul ñaar ñii ku ñàkk njariñ ak ku ñaaw yàlla du leen yónni koo gis mu ñaaw walla mu ñàkk njariñ sunu borom yónniwu ko yàlla ko taaru lay yónni ku am njariñ lay yónni ñaar yëpp nag sama waa ji dellu la barke suñu ñaawoo ñàkkoo njariñ lu la waaye suta dagg ko bu naan njool mi kii tax ñu naan njool mi saa waajaa ngi nii barkeb sañ Tuubaa Mbàkke kii Cheikh Mbaye daa dëkk ak samay mbokk ajaratu du fi fay ca mbuur ak sama baay bokk baay ñu koy maye ma ñëw ca takk ngi ngir sama rakk ji geesu gis samay mbokk sama mbokk yëpp ne ma macha allah am nga am nga jabar lu ngeen di wut ma ne ko kii ki ko jël si sama rakk la ay doomi baay lañu ay mbokk lañ du ñu géer a géwél benn lañu ñoo bokk ndey ñoo bokk baay mu ne ma am ngeen jabar kon yàlla bu yaakaar tas joli naa balaa nëgë ni déwén yàlla nañ taxaw fi am tudd ci barke Cheikh Ahmadou Mbaye Xabaan Cheikh maa ngi lay ñaanal. ndax sa yaay dalaa ñaanal axma damaa ànd sama yaay ci koor gi ñëw ci kër gii yaayam wax ci moom loo xam ni bu doon yéen danga ko fi wax dañ naan da ngeen wut xaalis kon di la sa yaay ñaanal yal na la dal lu la sa baay yal na la dal sa rakk yi luñ la ñaanal yal na la dal lu la géwél ñaanal yal na la ci barke Cheikh yàlla boo tàggoog teraanga ñun ñu ngi jógee campement Ngexoox ñu ngi ziar waa Touba yëpp. ah di ziar ajaratu bi nga xam ne moom moo ñu fi tax a daje tey di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér kaala gi yar na ko rappal di suñu goro Cheikh mbay Guèye moom tam ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér man dëkk bi 2007 laa fi géej ba Serigne Saliou nelawee boobu laa fi géej maa ngi fiy soog a duggaat tey donc ngeen xam na bës bii bës bu ma ñor la njéye mii sama jarbaat la man ak yaayam ñun ñoo bokk ndey ak baay ah Cheikh Balla Diop di maamam ak Cheikh Ajaratu bint Si donc njéye dañ leen koy gën a dénkaat xale bu ndaw la ah sëñ Cheikh da wax dëgg yàlla keroog ba ma ko gisee keroog laa ko gis ah sopp ko wóolu ko yàlla xam na ko keroog ba mu ñëwee di nuyoo si c'était la première fois ñu tegante bët moom mu ngi nii te magum jëmm laa dara duma wax loo xam ne newul ci man donc njëyee ñu ngi la koy gën a dénkaat ñu ngi la koy gën a dénkaat ñu ngi la koy gën a dénkaat famille bi yëpp ñu ngi la koy gën a dénk di am yaakaar ci yow yaa na bu yaakaar tas ah wax dëgg yàlla fii ku fi ñëw tey sa xol tooy na sa xol dina sedd parce que àddina moom teraanga rek moo fi nekk li ci des nag wax ji du mën a yàgg dañuy ñaanal sunu yaay ji nga xam ne moom moo demoon Makka ah yal ko yàlla defal jàmm defal jàmm waa Touba yëpp rawatina si nag waa Ngéyeen yi nga xam ne man tey laa fi soog a teg sama tànk di ñaan rek di fi yàgg di ñëw. ah yéen ñi ànd ak aussi suñu goro bi tamit yal na leen yàlla aussi gën a dëgëral seenub ànd yàlla na leen saytaana sori ànd ak aussi suñu mag kii sama jarbaat la ah, tudd sëriñ jeng papaam di woon Baye Cheikh Dieng ñu nekkoon ay murit sadix waajuram tuubaa gi lañ ko de lañ ko jenc ba ñu jëwee tamit Touba tam bala ñoo dem fen dañoo dem ziar ko na bala ñoo dem feneen dañuy dem ziar suñu papa ji ñaanal ko soog a ñëw ziar suñuy goro taale ko suñuy loxo bala ñoo delluwaat campement Ngexoox comme nawet la ñu nekk nag tàkkusaan jot na te la ñu taxoon a jóg euh, dox nañ ko li des moom rek ah, di sàkku ci yéen ngeen ñaanal ñu ah bàyyi leen ak bés bi ngeen continuer yal na fi yàlla saxal jàmm ñu ngi jéggalu nag bu baax a baax dañoo tàmm la wax ci mbooloo kon boobu ñu ngi jéggalu di sant bu baax ba ñu fekkee suñu mag ji di aas di nit ku baax aas Socé Fall nit ku baax bërki démb la sama grande sœur magu njëyee jóge Màkka fa la yendu di ajaratu na jóg moom tam ñu ngi koy ñaanal di ñaanal soxla ñu fexe daje tey yal na yàlla ak yeneen defal leen ñu seeni i kaala yi vraiment ñu koy kaalawoo ba di ko jox seen i sët yàlla mën na ko yomb na ko yal ko yàlla def ci barke Serigne Touba ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di baalo àq ñëpp. bi urmatil xaasimi suma xaarija bi sidni yil xamal ma tabanga ma naa ijaaya wa bi abi wa abdulaay sidni falan maalo tanaay wa bi sulaymaan axini kayda layn wa kayda xayri wa kunni yaa muin bi minna xadijatin am lil amaan في العلم والأدب ربيك والعمل بيومنا عائد خلني ما يدوني في الأراضين والسماء بيومنا أبسط بين أبيات وبين ما يدوني سؤال ونكايات بأمنا سين وسين وسيار مني وما بتنا أجلي وسيار بمالك الوزار وابا علي بدر واغمد لا تجري بجاي جبريل تجري سؤاله وبلغني مبلغ رجالي بجاي ميكائيل ابريل اما والنبي علم الخير الكرمية بجاي اسرافيل قبل الاسمية أمني أول يوم الخمة جاء إسرائيل كل يعلمين دولاد وكذا بدرين التوسل لمن يدعو به سعادة دارين أفل به وليجرني لسيد عيني للنبني بلبني ورضوان آلي وبسعادة وبالحماية عن جملة الأساء والعناية وبنجاة سؤال وأساء وذكراتي وسكرات موت ربي ولساب وبالبلالات وبسرور إنما ماتنا وفي نزاري وسليا وسلما على نبيها وآله ما سعي eh, moom mooy ki nga xam ne mooy borom jotaay bi xam naa ñu may ko nopp ndax boroom xam-xam bu dee wax moom ku ko diglu rek la soxla li ma ciy barkeeloo rek mooy di ñaanal suñu bàjjan yàlla na ko yàlla defal ay ngërëm ak ay maqaama ci yoon wii nga xam ne demoon na ko ci makkatal mukarram muy loo xam ne lu am solo la ndax benn ponk la ci ponk lislaam yi nit mën naa dund ba dee du ko def yàlla defal ko tawféex mu am doom ju ko mën a yóbbu mu del dem ba dellu si waat ci jàmm am nañu dem te ñëwuñ moom yàlla defal ko tawféex mu dellu si waat ci jàmm ñoo ngi koy ñaanal aj màkk gii mu demoon lañ ci diggee yàlla ko ci yàlla jotale te loola muy ay alxajjul mabruur mooy yonent bi alayhi salaatu nee na ku dem màkka te caaxaanoo fa foowoo fa soo delloo sa kër danga mel ni na juddoo woon ci ñàkki bàkkaar te ak fayam mooy dem àjjana amul geneen fay ñaar yooyu yàlla na ko ci yàlla jotale suñ borom dañu ko wooteel ku dégg sa kàddu dana la wuy si mbooloo mi dana bari de gars danañ dox di ñëw danañ war fas di ñëw danañ duggi oto di ñëw danañ wari saxaar di ñëw waaye dinañ war ci fafal naaw yi di ñëw yàlla boole ko nag moom ci ñu wujju woon ren yàlla nañ njig laayam waaye yàlla na fi toog ba noppalu demaat bu ñëwee ba noppalu daal di demaat bu noppalu waatee demaat rek waaw ku bëggee tamit dem rek <laughs> waaw woote ba daal yal nañu yàlla boole ñun ñëpp ci ña ko ña wuyu woon su ko defee ñun ñëpp waajaat ci waajtaay wi gën a jekk taggu sëriñ bu mag bii muy njool makke dem fekki sëriñ bu mag bële di njool makka alquran dani wa man yabtaxi xayra al islaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi l min alxaasirin nee na adduna lislaama fi ne ku wër leneen lu dul moom da nga perte ëllëg yow mal fii mu demoon nag dafa bokk ci benn ci ponk juróomi ponk yi nga xam ni moo tënk lislaam yonent bi daa waxoon ni buniyal islaamu ala xamsati arkaanin fi diin shahaadati an laa ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah wa iqaami salaa wa itaa zaka wa xajji baytillahi alxaraam ak lan wa sawmi ramadaan wa xajji baytillahi alxaraam waaye bi ci am solo rek mooy ponk bii nga xam ni moom la soxna si dem matali woon ñëw fekkaat ñu fiin ñu di ko ziyaare di ko laaj njool màkka ñoo ngi lay ziyaara di la laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi gis nga ko te gis na la ndax fi nga bàyyi koo kenn du fi bàyyi di siyaar ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xool ci ay bëtam kooku Sëñ daa wax ni billaahi lam yaati wa laysa yaati mislu ibni abdillahi zil ayaati Sëñ mii nga xam ni lu wax dëgg la yàllaa ni woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuuhaa yonent bi na du waxe bànneex mukk lu wax rek dëgg la yàllaa ko wax yu te sëñ Tuubaa moo doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon na koo xam ni dara dara dara rëcc ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa kon lu mu wax rek dëgg la nee na njool makka mooy ki yàlla def mu gën ci mbindeef yi te mbindeef dootu mel ni moom ba abadan sëñ Tuubaa moomu nag moom nga tàggu fii dem siyaare ji sëriñam ba nga xam ni lam amoon lépp jox na ko ko sëñ Tuubaa daa wax ni dallani allahu ala llaahi bila taxarrurin wa umri taqabbala nee na man yàlla moo ma tekkale boppam ma jaar fa ba egg ci moom mu jox ma ay ngëneelam wal bidi ko ni man dama damaa am suma jëwrin jaar fa est-ce que xam ngeen ni Sëñ Tuubaa looloo ko yóbbu jëwrinte bi dafa jaamu yàlla ba egg ci yàlla yàlla jox ko lépp lu mu bëgg ni ko nag dama am jëwrin jaar fa